2019 alhamdulilahi rabil alamin dama ne la gaynde ga dikk na de eh, ak ndam la le sacre du jato gaynde ga tribune yéene kaay ne dama ne Sadio Mané ballon d'or africain 2019 maa la ko wax dafa jotee enfin Sadio Mané ci box foofu li ne maa ko digoon sénégalais yi la moo taxit def nga ko gor ca wax ja ñëw Sadio Mané ne day nag dari bis bu rëy ci man maa la ko wax moo taxit sama xol fees na lool je suis ému enquête yéene kaay ne démb dee daa mel ni kon ci Égypte la bu dee woos fukki at ak juróom-ñett nag ginnaaw ba kon kii di Alaaji Ousseynou Diouf ci ndaanaan li jëlee ko ñaari yoon kon Sadio Mané day démb nag nekk na ballon d'or africain Saliou Touré waaw nee na gis nga Sadio Mané bi de daa mel ni Ronaldo maa la ko wax ndax nag li muy gën di dem macha allah di gën a def nag ay jéego di gën a foqale tamit maanaam di gën a gourmand loolay dëgg président Macky Sall ne ndam lii nga xam ne kon moom Moussa Fall chargé de communication génération foot waaw nee na waxtu yi nag dafa jot ngir Sadio Mané kon seeti leneen dem ca beneen club loolay dëgg parce que juróomi atu yàlla yi nga xam ne kon moom la def Liverpool day Sadio Mané masala daanaka lépp la jël gagné na fa lu ne terminé yéene kaay exclusive de na ci kaw Afrique direct news de dama ne Sadio Mané waaw nee nañ moo gën a xarañ ci laa wax sa jamono joo xam ne nag Sadio Mané ngay wàcce Égypte gële eh, eh, Samba Sow day wàcce na day yëngal na démb tribunal ba laa wax yëngal ka sam maa la ko wax parce que at xam ne kon maanaam adduna bi ñoo ko doon xaar day ci rey xam ne kon rey nañ ko Fatoumata Matar Ndiaye waaw ca këram la ñu ndaw sax chauffeur bi xam ne kon moom lañ jàpp ne moo ko def di Samba Sow day moom i démb daa tuumaal madame Awa Niang allahu akbar ca sar ci assemblée Samba Sow allahu akbar laa ilaha illa allah ay wax day rafet di sàmba saw yemu ca ndaxte safar ba day waaw daal dinay tuumaal tamit Abdoulaye Timbo tuumaal na tamit benn sëriñ day waa ji dama ne la tuumaal na sax police nationale allahu akbar enquête yéene kaay ne dama ne la démb kee la xew ca tribunal ba lay musiba mbaa kumba box bobli ne faatu gi xam ne nag maanaam Fatma Tamaraat Njaay kon dee na ko ni lé ah sàmba saw day daal dinay rakkal nag waa affaire yéen nekk diwaanu Pikine allahu akbar sàmba fan ak juróom-ñeent si weeru novembre googu 2016 eh, sama bisu anniversaire la ma waroon a dem nag ca màggal Tuuba waaw maire bi daal di may tere ma oto ba dem na ca ma di ko raxasi lay fa laa dajee sëriñ ba mu daal di yëkkati ab meew jox ma ma ba ma ko daanee nag laa tàggoog sama sago day ba ma yeewoo ba ximiliko ah ci laa sama yaram bi taxir rab ak ay mëniw maanaam ndoxu góor waaw mar di taali ca ba waxee ne kaay na nga ma ca kër Gueye ak madame Balde la ilaha illallah Samba Sow yamu ca parce que daal di nañ nango ne day gis nga sëriñ boobee waaw moo daal di yëkkati baaka day ne ko jëlal ta dem jam doomu Fatmata Madaan Njaay bi la di Adama Ba waay Samba Sow yamu ca xam yo ba léegi ni la dee parce nag fi mu awa ñaa day ah, am na nga lu ko mitti lool lool lool ci kàcc yi nga xam ni kon moom la Samba Sow mi la daal di kàcc di fen yu doy ay tuuma yoo xam ni dara nekku ci dëgg accusation mensongère ñu ko jege waaw démb na dund na bis bi gën a métti ci àddunaam laa la wax te mënul woon a def lu dul ay jooy ak jël lépp ko ci loxol yàlla ressource ané dama ne la démb kon la xew ca aadoo Fatma juróom-ñett day waroo koo déglu interdit au moins de 18 ans maa la ko wax parce que di bâche nee na sëriñ boobee ci boppam moo kombaloo ak antam ji di Fatmata Sow ajo fi awaña waaw kookoo ren di Matar Ndiaye ne yenn saay sama daata Fatmata Sow day ak awaña ah dañ ma doon jox ay téere ngir ma koy def ci biir oto Fatmata Mata Ndiaye bi lu ne def nañ ko ngir éliminer ndaw ba ma rendee Fatmata Mata Ndiaye ba noppi day sëriñ bi waaw daf maa jox deret Assane Ndiaye ci ah, waaw nee na keroog ci suba day daa mel ni dama koo yëgul ba ma jekki-jekkee dégg koon am coow ma daal di dégg ax ah, ax ah. ba ma fëggee sama buntu néegu yaay ma dégg ku ne é eh, eh, daal di tëjaat buntu beeg caabi yéen kaay daaw da càmbi ne moo taxil procureur day waaw nee na Samba Sow mii nga xam ne xamadi la fi wane yeyowul dara lu dul taas ku courant mu dee alaaji Fallou Kam mi nga xam ne moo deewoon kon ca kaso ba fee ca Bawol day réew mi quotidien nee na ñetti policier yi ca nga xam ne moo amoon ca xeex ba policier yi nga xam ne ñoom lañ ca jàppoon day procureur ah nee na nañ xam ne nag maanaam ñu ngi waxoon courant bi day tur bi boulanger yi ah nee nañu nguur gi bu delluwul ginnaaw tey danañu fi toog ay bëccëg yoo xam ne mburu du am de maar di taali maa la ko wax les écoliers ne kaay ne centre yi nga xam ne moom la ñuy defee hémodialyse day boo sàgganee ci tëj lañ jëm de maar di taali ñi nga xam ne kon nañoo feebar day insuffisance rénale waaw seen bakkan nañ ci xor gerte de ci jamono joo xam ne na courant boobee waaw yokk nañ ko critique yéene kaay nee na manifestation ginnaaw suba bi day waa front de résistance fekk nañu ñoo lànk yàgg na wal fajiri ne courant bu ne ñoom Guy Marius Sagna kon ci kaso bi waaw front de résistance fa rëy fekki nañu nag waa ñoo lànk ngir ne tojaange yi nga xam ne moom la nguuru Macky Sall gi ne kenn la d'accord duñ ci tey te d'accord duñ ci ëllëg Fadel waaw la ñuy sàkku daal mooy Guy Marius Sagna Galas Sall ak Ousmane Sarr ah nañ leen génnee ci kaso bi da wàññi courant bi lay réew mi quotidien Sadio Mané de bu dee daa jël ballon d'or waaw Imam Youssoufa Sarr bu Guédiawaye waaw a jóge fii di expliqué ne Sénélec moo nekk ci yoon nguur gee koy rel xaalis kon yokku courant bi bu ci kenn wax ak imaam Youssoufa Sarr li mu xeex ci wàllum courant bi jamonoy Abdoulaye Wade ëpp na enquête yéene kaay ne en tout cas dialogue national ba day ah am na malaise am na dee diggante Famara Ibrahima Sagna ak général ñaa maa la ko parce que ñaa ànd ak général ñaa nekk cette section politique ba waaw nee nañ duñu amul nekk xuusma ñàpp kenn wala toog ci ginnaaw kenn laa la wax Mamadou Lamine Diallo ci Walf Fadjri ah, nee na xam nga dialogue national bi lan moo ko tax a jóg présidence nekk président ba keroog ngay dee mënu fee ne directeur ba a fa togay fay bi ne Maodo Malick Mbaye ah nee na Macky Sall am na ñu ko wër waaye jàppale wuñu ko direct news de tey rek laa lay wax les hommes du président maanaam Macky Sall ñu ko wër Mohamed Boun Abdallah Dionne Augustin Elias Kassé Seydou Gueye Oumar Demba Ba Ndiouka Diouf Abdoulatif Coulibaly Mame Mbaye Niang ak Jatorou Ndiaye mbete équipe bu <laughs> waaye nag loo leen doon gàngoor gàngoor gàngoor gàngoor gàngoor nekk ca pale ba ah na ngeen xamal doon toon ne suul gaz du xeeñ te troisième mandat yi fi boo paree mën na